وفكرة نور وقلبي أرشدا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sant suñu boroom subhanahu wa taala julli ci ab yonentoom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant asayxul qadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom dëgëral ko te kartanal ko te wéral ko te defal ko mboolem xulafaaw yi nga xam ni ñoo wuutu mag ñi fu ñu fi mën a nekk ci réew mi mbokk yi del si waat nañ ci jotaay bii nga xam ni moom la ñuy fas yéene ànd ak yéen ci diiru euh, safar muy yóbbulu màggal tomb bi waxoon nañ leen ko te mooy asayqul qaddiim wa sukuru te mooy Serigne Touba ak li nga xamante ni mooy sant mbokk yi euh, sant mën nañoo wax ni euh, xulqun min axlaaqi rububiya maanaam jikko la joo xam ni dafa bokk ci jikko yi borom bi subhanahu wala melo woo xam ni dafa bokk ci ay melokaanam ndax suñu borom moo wax ko alxuraan ni wallaahu dakurun alim moom yàlla ab santaakoon la waaye moom yàlla itam dafa nekk koo xamante ne nii ku lawat la waaye moom suñu borom subhaanahu wa taala mbokk yi dafa def euh, li nga xamante ni mooy cant mu nekk caabi ji nga xamante ni mooy ubbi yi waa aljana waaw ñi nga xamante ni ñooy tàbbi aljana ëllëg li ñuy njëkk a wax ak cant lay doon waaw li ñuy njëkk a wax ñoom waa aljana ak cant lay doon kon loolu itam dañ ciy dégg ni cant dafa nekk loo xamante ni lu am solo la kon loolu bokk na ci li nga xamante ni moo tax sëriñ bi woonu mbokk yi ci nu santale ko suñu borom subhanahu wa taala ci fukki fan yi ak juróom-ñett ci weer wi nga xamante ni mooy weeru safar moo tax alxuraan da doon wax ni alhamdulillahi alladi saddaqana waadahu ñun day ñi ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ni la mu dëlante woon ak ñun dëggal na ko te mooy daf ñoo digoon nañu dana ñu tàbbal aljana léegi nag loolu mu ñu digoon defal nañu ko kon ñi ngi sant yàlla kon nga gis nii ñi nga xamante ni sax ñooy waa aljana bokk na ci li nga xamante ni moom la ñuy njëkk a wax ñoom bu ñuy tàbbee aljana lay nga xamante ni mooy ubbi seen wax mooy ak cant kon mbokk yi cant nekk na loo xamante ni nii lu rëy la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ataadudu bi nicmatillahi sukrun maanaam waxtaane xéewal yi nga xam ni moom la la yàlla defal Munul ak sant la loolu mo taxoon mu digal yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa ama bi ni'mati rabbika fa'abis manam xéewal yi nga xamni mom la la sa borom xéewale yow yonte bi sallallahu alayhi wasallam su boba loolu na koy waxtane waaye waxtane gog nga koy waxtane nak du yon waxtane manam faqru manam ngir ndamu wala euh, jaay ni la tollu waye waxtane la ngir sant suñu borom subhanahu wa taala kon lolit bok ci li nga xamanteni mbok yi lu mat a bàyyi xel la moo tax itam ca daane lu hadis boobu euh, te bay xaq yi moo ko solo daf caa wax ni booloo dafa nekk yërmaande waaye taqalikoo nag li muy jur mooy mbugal loolu it euh, waneen déggin daan ko ci dégg mbokk yi ci bisu màggal gi ndax euh, bis la boo xam ni sëriñ bi dafa woote ngir ñu santale ko suñu borom waaye ci dëkk bii nga xamante ni mooy Touba mbooloo mi daje fi kon daje googu nga xamante ni moom la fi ay jullit mbokk yi di dajaloo loolu dafay nekk yërmande joo xamante ne day tasaaroo seen kaw waaw loolu dafay nekk yërmande joo xamante ne nii day daal di euh, doon yërmande juy tasaaroo ci seen biir loolu moo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ki nga xamante ni aji sant ji maam day am wàccuwaayu ki nga xamante ni nii day koor waaye nekk itam koo xamante ni kuy muñ la waaw ki ki nga xamante ni da aji woor la maanaam aji sant ji day am way bi nga xamanteni mom la aji koor di am waye ki nga xamni moy aji muñ bi aji muñ waccu way bi nga xamanteni mom moom lay am yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ki nga xamanteni moy abakir te moy aji sante di day am way bobu nga xamanteni ni mom la am mo do ku wax hatta dafa wax ni dama ñew ci sunu yaay aisha radiyallahu taala anha neena bima ñew ma ñëwee ci ma ko xibaar ma ah, li nga xamni mom nga gis mu gën la yim ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bi nga xamante ne nii wax naa ko loolu nee na mu ni day sallallahu alayhi wa amul men mbir moo xamante ni ci ay mbiram mu yéemewul waaw amul men mbir ci ay mbiram moo xamante ni ni yéemewul mbokk yi kon xam naa foofu la ñuy taxaw ci jotaay bi jox leen dig dañ sala taala ci beneen jotaay seen mbokk Mahmoud Ndiaye doon fii ci Touba li gën ci ñun yàlla nañ ci borom defal te dëppale ko gu li ñu gënal wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu